sëñ Ablaye Bakhoum ñu bëggoon xam nag yow wàllum faj ak ñaan da gis ñëpp di ko def nga ne xaaral nga def ko. wala lan la lu waral nga toog di faj foo toj ak tamit mbir bi nan la la dikkee yaay kan. dañ ne lu jëlax jur mu gas. lu jëlax jur mu gas. lu juddoo ci tàgg bu naawul jaaxal bokkam. jaaxal bokkam. samay maam ba juróom-ñaar ci ndey. Hmm. ay sëriñ lañ. samay maam juróom-ñaar ba ci bàyyi ay sëriñ lañ. Hmm. te ko. feebar bi xew léegi ñu ñu naan coronavirus bu ko bu ko tubaab yi indiwoon milliards yi mat sëkk bàyyi koog yow ne la ko am na ko faj mën nga ci dara. en tout daal jàngaro. jàngaro bu ma jot daal su jël siwul bakkani borom ma faj ko. xeetu liggéey ku liggéey nan nga koy xàmmee noo koy xàmmee wala nan koy. ku ñu nii ñi yore feebar su ma génnoon ci bitti day mun naa gis kuy dox ma ne la eh kii am feebar nangam. est-ce que dafa am nga oo dama la koy wax fii ba pare ngeen dem oo ko laaj ko mu ne la nangam moo may métti du deñ du deñ parce que dama am laboratoire xeetu ku nekk ci sëy am ci jafe ak bëgg assurance bu wóor blende ko ba sëy bi kenn du ci mën dara hmm. waaye boo buggee ñëw nag yore sa lañ set yooyu di séparé famille bi famille bi dagaase la famille bi dagaase la taxawee fi nga war a taxaw hmm. mun naa laa defal ñaan nga saf ñëpp nga saf ñëpp. waaw waaye soo melulee ni nga war a mel nag da ngay soof ñëpp. da ngay soof ñëpp ñëpp nag ñu liggéey la. Mhm. ku mun sa boor sa jëkkër du la bàyyi soo defee ne nag bu fekkee ne nag mun nga sa boor te sa jëkkër gisu ko ndax di la gënaat le boo ñëwee ma rek ndigam mu nooy. <laughs> non dëgg daal dëgg. xëy ku bëggul boppam ci wàllum sëy daal loo ma koo xam ne day gaaw a daanu. waaw buy seeg jabaram day gaaw a daanu bu yegsee ci pooc yi sax daanu. waaw dañ koy wax mu leer. mu leer waaw mhm. docteur boo demee ci moom yore ay góom ci awra da ngay génne sa kanam ne ko nii mu ngi nii. Ah, góom baa ngi day leer. koo xam ne toog na fukki at ñaar fukki at mënu la kuddal. Hmm. ma ko jotee mu kuddal. amul làq-làqal dañuy wax mu leer xam-xam tax ñu jóg. xam-xam bi ñu jog xam-xam moo tax ñu jóg. Hmm, bu fekkee ne ndox mi dafa yolom dafa yolom ma jëfal la ndox mu far. am na nekk ci internet bi xam la jékki-jékki gis sa émission wax la lu bon. ku ko def mat waaye. ci nit wax dara lu mu war wax mu seet keroog lay xam ndax sëriñ am na wala sëriñ amul keroog lay xam ndax lii may wax eh? du dëgg keroog ma daaj ko ci kay fa sa jamakin kas la woon yàq la tun fakkalamum sakaalun jamuhum mak la nun kalaw keroog mun ah, def ko lu wax dootoo ko wax ngay ngay boobu comme xaj di lekk ay cabinet man <laughs> waaye doo gis jinne ci melokaan bi ko yàlla binde boo ko ci gisee faatu faatu boo ko gisee dee ah. dafay soppeeku comme kàkataar ni muy def yata sakalu na yata law tamit dafa am loo ma waxoon nga ne ma képp nekk ci réew mi te yëngu ci xam-xam dëgg dina la xam loolu foo teg moo tax yonente bi dafa doon wax ne wattala bu la alma walaw bi siin leen xam-xam ba àgguma siin waaye toog nag ñu jógee siin. siin nag jamono ji wóorul sax. ñu koy jàng. Mhm. xam-xam tuñ ko donn. ku mhm. bàyyam nekkoon médecin te jàngul médecin ko mu opéré mu dee. non doomu Youssou Ndour mënul way. te ko am faru mhm. noo ko def ay càngal lay doon toog fii jël sa tur jël sa rawaan boole koog moom mu bàyyi la. rawaan noo ko jëlee moom. mu na nekk muhliku mun na nekk muntaqimu nga daal di ko jël boole kook loolu daal di jël sa xaatim dagg ko def ko raw rawxaan mu wër xawaatim bi nga dugal turam ci biir suwaat nga jàmb ko bees ko ci ngelaw li mu naaw mbaa nga sànni ko géej mbaa nga sànni ko fu jege ndox eh, bu dee cancer bi daal daan ci yaram yi mhm. ba fallu ci ginnaaw bu ma ko jotee li sax yi ma rey sax ci saa si mu dee ci kattani yàlla sax yi kay du mot ñaar kon daal jàpp ne kii ñu tëj akaarul day fekk cancer ba mu wér. dama koy faj day faj dama koy faj ba mu wér. ko paralysé ba toog ci pousse kooku loo ko mënal. kooku de dinaa koy faj mu wér. mu wér mu wér. ba mën a doxi soxla. mu mun a mun a doxi soxlaam. ba mën a daw. bu loxo bi semee mun na tudda normal bu tànk bi semee mun na tudda normal ku la wax ne mun na koo andi day fen. <laughs> te ko ku dem ba tànk bi naanu. munatuñ koo andi. kooku Jésus Christa rek la ko yàlla mayoon lafañ nga faj mu wér mu ma nga wax loo ko. amul sëriñ bu la mun wax ne mun na ko day fen. Mm. maa ko wax day fen. wax. <laughs> maa ko wax. Mm. ci kaw waxuma ko ci suuf. <laughs> non teg tamit Effenberg yi ci dëkk bi jigéen ñi dem ba nekk mag borom kër tële. mu nga am jëkkër. nga am ci kaw boo ko buggee te bañ a taamu. ah ñeenti góor nag dinañ fëgg sa buntu kër waaye xam nga booy xool Macky Sall te xoolu la di nga fi <laughs> ah. xool sa qualité da ngay sol sa pointure. sol sa pointure di yootu lu nekkul sa pointure tardement la lay andil. <laughs> moo tax ñu naan tànnkati dàll carax laay mujj te moo fi bari